wax la imam Dramé li mu gëm pour ëllëg bu ci àggee nga ne waxoon naa ko man li xew fii ci réew mi yëpp waxoon naa ko man damaa bokk ci ñu gëm ni kenn mënu fee organiser élection yi Ousmane Sonko bokkul loolu gëm naa ko te yàgguma ko commence ba Adji saar jógee di fen fenam yu rëy yi ni Ousmane Sonko da ko violé laa leen ni fenkat la ñu ni ma foo ko teg ma ne yonent bi salaay sallam moo ko wax nit boo ko jiiñee njaaloo da ngay am ñeenti seede ñeenti seede yu bokkul fu ñu jóge parce que l'islam complot lay sóoraale parce que saar amul benn seede yaa ngi dégg le certificat médical. bu ñu defaat le dossier foofu dañ koy leeral. wutal ma solution c'est-à-dire solution laa lay wutal solution mooy ñu fàttale li fi jaaroon d'abord. Ah. certificat médical nga xam ni mooy pièce maîtresse bi wane na ni lii ay caaxaan la dara amu fi capitaine Touré nga xam ne moo bokk na ci capitaine yi gën a sérieux ci réew mi. ñëpp nangul ko expérience am mu ñëw décharger Ousmane Sonko kon dossier boobu warul woon a génn tribune euh, gendarmerie tey li waroon a am bu doon am na Adji Sarr dañ ko waroon a caw loolu mooy dëkk yaa ngi dégg comme nag ñoom caaxaan nañ ba indi fii situation bi. ñoom nañ ko gérer loolu ñoom ñoo ko xam man loolu duma ci dugg man daal li ma gëm mooy état am na moyen yoo xam ni mën na ko utiliser pour Ousmane Sonko nekk candidat loolu la ñun ñëpp di souhaiter. bu fekkee ni loolu amul man gëm naa ni peuple bi moom dina utiliser ay moyens te bu ko peuple bi utiliser nag c'est malheureux euh, lay yàqu ñun ñëpp a ci